المستقى التفابير ndeysaan jaayal kiraami bi fadlil manula بمدن عجيب لخير سموها ndeysaan xayrina lula دمرا ولا سدا وسلامة على جل سدا سلامة تبا مداد نبي الكريم سقيل كبيده الله كريم سقيل بارك الله لباس الفتور أمن عبيد إلهي لسي جرني إلى خدمة المصطفى في الفتور عمدا بارك الله alaaji fallu laay ëllëg alaaji fallu laay fallu borom dindi alaaji fallu laay ëllëg moo ni alaaji fallu laay ëllëg moo mbokk mi ngi noonu Cheikh Gambo Ngoog yaakaar naa euh, li ma leen ci waxoon lépp gis ngeen yéen a ngi mbég Cheikh loolu sa air wuy jur la sa baay nu mu tuddati. Serigne Fallou Gambo Serigne Fallou mm-hmm. air bi airam la. airam la te xam nga nag liñ naan doom euh, doom bu nduroo baayam. Mm-hmm. doon xaritu bàjjanam. Mm-hmm. te it yow yëg nga te wóor na ni tey sunu bàyyi. fee mu ne ca Kaolack yal na fi yàlla gën bujigen bàyyi mu wér ak sa waajur bu jigéen baag sa sa yaay yëpp tey bëgg nañu mais Cheikh euh, ndax sa eeru waajur boobu rek nga mës a mais wala am ñeneen ñoo xam ni nga seen eer waaw xam nga sama waajur yàlla dogal na école la bari na jàngkat yooyu dégg ñu bari ci moom la ñuy naane hmm? waaw ku ñu wax Cheikh xam naa da nga koy dégg. Abdoulaye Abdou sama xarit la maa ngi koy nuyu. waaw eeram yu bari sama eer waajur la. est-ce que. waaw en général sax moom damay jàng eeram ndax eer bi génnul eeru sama waajur. ah da ngay jàng eeru. Abdoulaye Diouf mais Abdoulaye Diouf day roy sa waajur mais moom tamit am na eeru boppam. waaw mais ban eer la nga koy royee. bari na. bisimilah maanaam eer bii ma jàng nii. waaw damaa dugal sama waajur dugal Abdoulaye Diouf yëkkati. Abdoulaye Diouf rek nga mën ci koy roy ci ñiy way. déet bari na. bari na ñi may roy bari na. mais sa bari na tamit sama sama yëfi bopp. mais sa yëfi bopp. waaw air boo xam ni sa mm. air bopp la. Mm. nga wayal ko téléspectateurs yi. Mm. ñoo xam ne nag kii. Cheikh Gamou la. insin wa jinnin wa min urukin wa min ajamiya